am audience ak moom vous pouvez venir à la mairie dina leen recevoir ngeen wax ko seen doléance yëpp loolu man maa leen koy ñaan très bien voilà loolu très bien maintenant li ci des collaboration lay doon en tant que maire bokk na ci domaine de compétence am mooy mu jàppale ay femmes yu mel ni yéen pour liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def pour l'intérêt exclusif de la communauté mu soutenir leen bu ko defee loolu moom ci la inscrire loolu moom mooy politique loolu mooy idéal politique am loolu mooy li nga xamante ne nii moom la bëgg a nekkee à la tête de cette commune qui est la commune de Thiès Ouest mu ngi regretter nag profondément le fait qu'il soit à la dernière minute empêché Il aurait vraiment souhaité être présent, être parmi vous, vous soutenir, vous accompagner. di remercier initiative bi ngeen def Kiné Diouf soxna njaay ngeen taxawal ko yëkkati lu day ni soutien jox sama président Ablaye Dieye may àndoon moom di liggéey ba yegg si fii kon nag président nee na kontaan na ah ci yëg bi ngeen ko yëg. ba tey boole ko ci lii man nag li ma ciy wax bariwul parce que wax ji daf may xaw a tële Kiné Diouf dañu nekk marché di liggéey macha allah kàddu mu rafet ñu nekk ci côté bu nekk dara ñaaw ci ba tey lii mën a am ñu bokk ci DER bi nag ma représenté femme développement yi ci DER bi di ci liggéeyandoog ñoom ñu may indil ay groupement ma di leen financé te yàquwuñ ñu ko yéen ñii tamit yàqu leen ko parce que boo leen fayul woon xëy na du ma yegg fii mais dama leen di jox xaalis ngeen di fay kon yéen la du man ndax boo leen fayul woon ba tey daq na mais nag dama àndandoog yéen di liggéey ci côté boobu ñu ànd ci développement ngeen di ma leen di jox ngeen di delloo ndax delloo su amul woon defe naa lii du yegg si fii kon nag dañuy sant gërëm di wax ni daal kontaan nañu kontaan nañu ñun ñëpp ay femme développement nag ñoo fi nekk la ma waxoon Kiné Diouf rek marché laa ko wax Kiné ba mu ñëwee mu waxtaan ceeg man dama ne ko loolu mooy dëgg parce que ñun cees dañu war a teg suñuy gànnaay ñun Thiès li ñu war mooy àndandoo dóorandoo xàccandoo ndax bépp politicien bu toog fii ci taabul bi rek doomu Thiès nga amul kenn koo xam ne nekkoo fii génn nga cees kon ñun li ñu war a def bokk ndey bokk baay lu ñuy def ñu defandoo ko lu ñuy wax ñu waxandoo ko parce que moo ñuy jël kanam xeex bi amul njëriñ far fii far fee dem fee dem fee yooyu yëpp amul njëriñ li war mooy ñun ñëpp ñuy doomi Cees dañu war a taxaw di dóorandoo di xàccandoo ànd xool li Cees xam ne moo koy jëmee kanam ñu def ko man loolu mooy sama gis-gis ma ne nag beneen bi ci des ku nekk xam na ni man maa ngi nekk ci développement bi nekk ci lu ne macha allah kaar tubaarkaal waaye nag dama cee ànd ak ki nga xam ne mooy Ablaye Dieye te yaakaar naa saal bi ñu fi toog ñëpp xam nañ kan mooy Ablaye Dieye bu dee xam ngeen ko boog ngeen tàccul ma ko bu baax baax Ablaye Dieye du ma nekk fii sax di toog taxaw fii di wax li mu def parce que olof Ndiaye daf ne looy jëf te nit ñi di ci teg seen bët jaratul ngay nekk di wax maa def lii Ablaye nag day liggéey te yàlla tax Ablaye ba mu dalee liggéey defe naa booba falaguñ ko directeur aéroport yéen ñi fi toog ñëpp am na lu mu jëflanteeg yéen mu nekk ci jigéen ñi di leen jàppale à 100 pour cent di jàppale ci développement Ablaye ku feebar mi ngi ci yow ku am soxla mi ngi ci yow macha allah yal na ko yàlla lafal ca mu àndandoog nan ak euh, euh, naataangoom yi masali ak keneen ak keneen ñun ñëpp ñu nekk ci di jàppale jigéen ñu dóorandoo di defandoo lépp kon nag dañuy ñaan yàlla. ci kàttanam ak ci mbaaxam lépp lu ñu bëgg ci Thiès ñu dem ba suñu borom defal ñu ko parce que loolu rek moo ñuy may ndam mais leneen du ñu may ndam kon nag maa ngi gàttal wax ji di gërëm di sant ñi ma fi fekk ak euh, ñi nga xam ni tey ñoo waral bés bii te wax ni nañu àndandoo dóorandoo xàccandoo. madame Ndiaye présidente Kajoor Faw ndaxte ku xam monsieur le ministre de l'artisanat xam ko ci développement xam ko ci jàppale jigéen ñi. waaye rawatina nag euh, jigéen ñi yëngu tey nekk ci secteur nekk ci secteur artisanat ak transformation secteur informel te le président Macky Sall euh, bu ñu fàttalikoo ci son plan yoonu yokkute euh, après mu nekk plan Sénégal émergent quand il parlait de transformation structurelle quand il parlait de développement il faisait référence ci consommation locale te ku wax consommation locale wax artisanat transformation secteur informel jigéen ñi nag nekk ci parce que bi ñu bi ñu ñëwee xool produits yi ñu exposé muy produit yu mucc ay waaye ba tey tamit des na ndaxte dañ koy def ci seen i benn ak seen i ñaar moo tax bi ñu ñëwee seet si le ministre pour mu accompagner leen defe naa ni euh, ministre pare yabal ñu fi tey mais déjà am na yeneen i pa yeneen i wàll yoo xamante ni war nañ ci liggéey ndaxte war na leen ak war na leen accompagner ci ay machine amulen machine à moudre machine wal ak soq ak yooyu yëpp incha allah dina leen ci accompagner ba pare dina leen accompagner ci financement pour ñu am matière première pour ñu mën a defar ay produits yu màcc ayib war na leen tamit accompagner pour ñu am ay fra bu ko defee mën seen i produits mën a am accès ci marché yi euh, marché national yi même pourquoi pas marché international yi donc loolu moo fi suñu teewaay tey ànd ak ñoom liggéey ndaxte au la de partisans Euh, kii fii la far kii la far le ministre est là pour tous les Sénégalais donc moo tax fépp fu ñu ko woo fépp fu mu xam ni jigéen ñi ñu ngi fay jëngu dina fa ñëw dina ci ànd ak ñoom dinañ leen jàppale ci li nga xamante ni moom lañ ko dénk ndaxte liñ ko dénk moo war a defar Sénégal ndaxte bu ñuy wax 120 corps de métier bu ñuy wax presque les deux tiers des pères de famille ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci artisanat ak secteur informel donc on peut pas développer le Sénégal sans pour autant jaar ci artisanat ak secteur informel vision boobu ko président Macky Sall jox ci loolu vision boobu lay fexe mettre euh, en œuvre def ko sur le terrain ba ñëpp gis ci seen On est venu aujourd'hui euh, en tant que chef de cabinet du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, le représenter au niveau de cette activité organisée par euh, les femmes de Kadior FAO. En l'occurrence, Madame Ndiaye était venue l'inviter à cette activité euh, qui, qui, qui, concerne notre, notre ministère. le ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Je disais tantôt, euh, euh, dans son fameux et génial euh, plan Yonou Yokouté, qui est devenu plan Sénégal émergent, le président Macky Sall faisait référence à transformation structurelle et développement. Quand il parlait de transformation structurelle et développement, il faisait l'occurrence à développement, développement, il faisait allusion au développement local et production locale. Ainsi, pour soulager les femmes, il faudrait maintenant les appuyer sur ce secteur pour qu'ils puissent euh, euh, avoir de matières premières. Et pour avoir de matières premières, ils, ils avoir, euh, ils euh, être outillés. Et on a signé des conventions avec pas mal de structures financières, dont l'Ecobank, dont ACEP, dont DER, et, et Fongip. Et Inch'Allah, on va les accompagner sur tous les plans. Adja Soxna njaay euh, di madame Ndiaye euh, kuréel la goo xam ne ay jigéen ñoo ko tënk mat nañ euh, juróom fukki présidente ak juróom yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi sa mbooloo ñu dajaloo nag def benn kuréel def ko ay jigéen ñoo xam ne jigéeni kajoor lañ ki ko xam kajoor xam nga ni jigéen ñu fi nekk jigéeni bañkat lañ jigéen ñooñu nag ñoo daje. am na ci ñuy defar céréales locales am na ci ñoo xam ne dañuy jaay lijum am na ci ñoo xam ne dañuy cuub am na ci ñoo xam ne dañuy lett am na ci ñoo xam ne dañuy musóor am na ci ñoo xam ne dañuy transformation bisaab yi ak euh, carottes yeeg lépp daal euh, ay jigéen lañ daal yu takk yuy liggéey réseau bi nag ñu ngi ko commencé 2009 ba léegi ñu ngi jóg ak daanu boole suñuy doole di ci liggéey yàlla def na nag mësuñu am benn financement amul benn bu mas a jóge ci état jàppale mbootaayu kuréelu faamu kajoor faawu jigéen ñooy demal suñu bopp ba lii ñu fi defar yëpp ñun ñoo ko defal suñu bopp tey nag ñu ni jot na comme at mi mi ngi jeex ñu fésal li ñu liggéey won ko nag waa doomu Cees ndax nag am na ay doomu Cees yoo xam ne jox nañ leen ay ndombay tànk ah ñu bëgg nag ñu jàppale ñu euh, jàppale ñu nag euh, comme euh, ci financement yi DER bi ñu ngi koy joxe ñu jàppale ñu ci bëgg nañ ci machine wal yi ñuy joxe ba bëgg nañ ci machine soq yi ñu joxe bëgg nañ daal lépp loo xam ne si dana yokk jigéen ñi ñu jàppale ñu ci transformation bi ñuy def bëgg nañ daal ku ñu jàppale ci loolu lañu taxaw tey nii daal Euh, loolu ngeen def 2009 ba léegi lu ëpp juróom fukki mbootaay ngeen dajale ba mu nekk réseau kon gis ngeen jeexital bi si kër gi surtout si jigéen ñi. waaw gis nañ loolu ndax gis nañ ni jigéen ñi daanaka luñ ci am ci kër gi dañ ko yóbbu ci njaboot gi ndax mën naa ni jigéen ñi bu leen góor ñu joxee fukk danañ ca dolli ñaar fukk ndax jigéen ñi ñu ngi ci seen njàng doom ñu ngi seen yére doom ñu ngi jigéen ñaa ngi ci marché yi jigéen ñaa ngi fépp foo gis góor jigéen na nga ca kanam. Euh, kon nag euh, bëgg nañ daal ñu nekk cees euh, jàppale ñu ministre yi nekk Thiès bëgg nañ ñu jàppale ñu daal ak ñi nga xam ne am nañ doom ndombay tànk ci cees ñu jàppale ñu képp koo xam ne daal yaa ngi fi dimbali jigéen bëgg nañ nga dimbali. mën nañu wax ne am ngeen yaakaar surtout que ñoom wuyu si na leen si bés bi tey. waaw am nañ yaakaar nag ndax mën naa ne ñoom ñëpp ñëw nañ ndax ministre docteur Ndiaye ñëw na Ablaye Dieye yónnee na. Lamine Massaly yónnee na maire ville moom it euh, mi ngi yónnee ndaw mu ngi ñëw exeegul maire commune est moomit it mi ngi yónnee maire nord moom woote na léegi ni mi ngi yónnee am nañ yaakaar ne nag xanaa buñ ñëwee danañ ñu jàppale euh, ñun daal ay jigéen lañ yoo xam ne dañoo takku taxaw bëgg ku ñu jàppale ñu jëm ca kanam